salaamaaleykum aduna duna salaamaaleykum waa Sénégal ah tay nak sama yaay sama xarit muy mbay ak Luma sunu grand jaxi mo koy teugal le 27 inshallah adresse ngora man ci sama fans yeb di ci o wa lutte simple amateur lutte simple yeb man ngi fay o ku ma fa deug na ma marché ku bëgg xam lu may feccaat rek na fekk le 27 inshallah allah si mbay ak bi wa maa ci ciy ñepp dal buma limé dama Nama fekk la 27 inshallah allah si bésu mbayang bi wa nyepu ngi ci o ñëpp dal bu ma damay sama yi ak ñëpp ma ngi ci o ñu ñëw jàpp si ndax mbayang sunu ya mbayang la doonatul ya mbayang mbëri rek mais ya mbayang aduna la kon ma ngi ci o ñëpp nañ ci ñëw ñëpp taxaw inshallah allah ku ma fa dëgg ne ma mas dina ko yëngal ba mu neex waaw tak jàjj yëngal ko ba mu saf soow suñu borom aja ya mbayang yow amal jamu mang ngi lay bégee